Tëngéej sonn nañ torop lii kenn xamul lan la kenn demul kenn dikkul dakaar laa jóge nii léegi même pas cinq minutes maa ngi Tëngéej mais fi mu nekk fii maa ngi fi bëgg a def trente minutes pour l'instant nii te xamaguma yeneen trente minutes yi may def pour jot national bi travaux yi lii nañu si dimbali ngir yàlla jëmmi rasul sonn nañ torop torop torop torop fii ak lu mënte xaw daal gars yi xoolal war nañu mën a dimbali si lii quoi ndax ñun sonn nañ torop waa Tëngéej amatuñ pexe. métti amul lu ko waral lu dul fii nii ñu baare fii baare Fass Mbaaw baare fépp fenn kenn amul ku ñuy fu ñuy jaar mais xoolal fii nii yow pare goo sax di di di di di ci di ci di ci jaarlu ay nit mel nit ñi ay mbaam lañu quoi ñu dañoo sonn parce que Seydina moom dañoo sonn. salaamaaleykum grand ça le président de la république doit revoir cette terre là population bi sonn nañ trop trop trop il souffre beaucoup. vraiment il a droit vraiment à à revoir cette terre jërëjëf. circulation bi métti na vraiment métti na waaye nag yàlla baax na mun naa am lee ñu yegg quoi ñu ngi koy jàkkoonteel bu baax sax métti na foo ram foo romb croisement Kër Massar tout ça waaye nag yàlla baax na waaw nañ gën a yokk tali gën a yaatal rek yàlla baax na. nun waa Tëngéej sonn na noonu torop sonn bi mooy benn issue de sortie moo fi am mooy bii te gis nga kenn du leen ko nettali chaque jour situation yi la ñuy dund hier on a fait deux heures de temps entre la Sococim et Diokoul franchement par autorités yi ñoo ñu war a dimbali les voies secondaires vers euh, Layus baare nañu ko lii moo fi am lii c'est ce calvaire moom la ñuy dund chaque jour waaw loolu daal lan am lu waxoon nan si dimbali ngir yàlla yonante bi bismillah waaw embouteillage bi ngay wax waaw lii moom xam nga ni métti na moom embouteillage bi moom wax dëgg yàlla métti na trop waaw mu toll boo gisee ni mu demee nii sax nga xam ni moom gaa ngi def luñ mën lépp mais mooy loolu policiers yi ñooñu war a dimbali jàppale ñu di régler circulation yi te bàyyi oto yi ñuy jàpp oto yi di teggi bu xatuloon duñ teggi kenn fii noonu yi kenn ku ne fexe xool noo def ba dem rek non bi moom wax dëgg yàlla moom xoolal Macky Sall waaw non man kay amul lu ma ci sànni mooy sonn nañ ci rek kuñ ci dimbali daal la ñu bëgg quoi waaw sonn nañ mënuñu dem mënuñu ñëw gasoil bu ñu yor consommé ko diggante juuti ba ak ak ak ak ak ak ak ak ak ville trop te ngay sonn bi tali bi moom mu nekk nii daf ñu sonn xataay bi daf ñu sonal dëgg-dëgg doo am sax boolaa génn fi di nga am trente minutes pour génn fi diggante HLM ak juuti ba rek loo xam ne presque cinq minutes di nga am vingt cinq minutes si yoon loolu moom métti na si ñu ñëw. daaw waaw salaamaaleykum daa jëf maa ngi leen di bëggee di leen siyaar di rafetlu seen teewaay parce que li ngeen def nii dafa rafet parce que ñun ñi nga xam ne ay doomu Tëngëj lañ dañu yàgg soxla lii nga xamante ne nii xam nga faut que ñu ñu mën a joxe suñu message ñu mel ni yéen nag waa 221 ñu leen di sant leen gërëm parce que lii dafa métti ko quoi dafa métti trop te waa Tëngëj aussi xam nga dañ ñàkk seen personnalité quoi te budul te budul dara sax te budul dara. Macky Sall amul fenn fu mu gagné cent cent pour cent wala cinquante pour cent du tëngëj mais gisoo lii nii situation ñu ñuy dund suñu paa yi suñuy jéggi xam nga ay difficulté la nekk su tawee embouteillage bi xam nga c'est du n'importe quoi quoi gars yi suñuy liggéey diggante HLM ak ville bi rek da nga fiy def une heure de temps loo xam ne ni matul deux kilomètres yaa ngi comprendre ñun daal suñu xol jiyee na quoi dana xolal incha allah rabbi suñu bëggee mu jiyee dina jiyee quoi xam nga nañu utal solution déjà affaire bi mu ngi gën a empiré ñi nga génnee sorte bi baaxul parce que mu ngi génn si xam nga il fallait ñu def benn benn pont boo xam ne xam nga kenn du déranger kenn léegi soo ñëwee ba fële da ngay taxaw échauffé ñu wër rond-point nga dafa métti fu mu yem nag tayu ma incha allah ñun jeunesse Tëngéej xam nga nous sommes prêts xam nga à combattre li nga xamante ne nii xam nga rafetlu ñu ko ok merci jaajëf euh, bon constructeur bi mënu ma ko critiquer mënu ma wax ni bon na mais façon bi ñu koy liggéeyee moo baaxul parce que liggéey aussi booy liggéey da ngay tenir compte sa population nu mu leen actif nu ñu war a mën a demee mais mënuloo ñëw ci benn dëkk réduire ñaari route ñaari route mu nekk ay route secondaire yoo xam ne route principale lañ ci dëkk dégg nga wax ji bëgg taxaw ni da ngay defar defaral leen benn benn burgal benn ruq bu ñuy jaar dix ans tunnel depuis certain temps ça fait bientôt six mois ou cinq mois yoo xam ne lii la nit ñi di dund suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñoom bàyyi wuñ ci xel parce que peut-être yëguñu ko fa ñu nekk ñu ngi fay nekk xamuñu coono réew mi lu mu lu mu lu mu bàyyi wuñ ci xel loo bàyyiwul xel nag mënuloo koo yëg mais nag bu ñuy lu ñu mënti wax xaw ma ban population mais population Tëngéej sonn nañ ba fu sonn yem sonn nañ ba fu sonn yem parce que ñëw nañ di construire seen seen terre mais terre bi ñuy construire bàyyiwuñ ci xel population bi te aussi dëkk nag buñ la fale buñ la joxee nga jiitee di liggéey booy liggéeyal sa askan li ngay liggéey da nga leen cee war a bàyyi xel bàyyi xel bi mooy bala maa jëb dara ñoom dañoo war a xëy di wuti di wàcc di ñibbi ma utal leen yoon mais mënumaa ñëw fatt yoon yëpp tëj yoon yi ne leen fii ngeen di jaar par jël ay alkaati teg ko teg leen ci kaw tali bi parce que présence gendarmerie wutuwul dana lu dul wàññi nit ñi ndax ku leen gis du ñame ci li dama yaakaar nag ci tra <coughs> li ñuy wax travaux d'intérêt public soxlawuñ ñu am loolu bu fekkoon ñoom def nañ li ñu war a def mooy utal nañ nit ñi fa ñu war a jaar utal oto yi fa ñu war a jaar bu ñuy liggéey seen terre amuñu kenn benn nit problème mais nag dañoo jël seen liggéey forcé que suñu kaw comme ñun amuñu doole ñoom lu leen neex nañ ko liggéeyee mënuñu ci dara mais du lu ñu neex liggéey moom da nga koy teg ci yoon askan bi tàccu la dégg nga wax ji parce que ca la ñuy yëg la mais nag lii ñu teg yéen a fi ñëwal seen bopp def seen reportage li fi xew yéen a ko gisal seen bopp embouteillage bii nit ñi di dund dañ doon wax ni bu lii tijjeekoo sax dafay wàññeeku faf mu tijjeeku gën a empirer kon donc xam nga lii bu dee solution mu ngi nekk solution boo xam ne mu ngi ñuy lor te nag mu ngi bari ñu am ci yaakaar nag ñu am ci yaakaar ñun suñuy média ñu am ci yaakaar suñuy média parce que ñoom la ñu sentir ni heure bu ñu amee jafe-jafe ñoom ñooy taxaw taxaw baatu askan bi mën a jug as ñu ñu jiite mën a xam li ñu neexul te ci ce travail yéen la ñuy jaaralee li ñu naqari ngeen mën koo jàllale ñoom ñu mën a xam ne lii ñu ñu teg même buñ ko dundee dañ koo dundal parce que mais neexuñu wasalaam loolu laa amoon lu ma ci wax. dama ne ñun ba ñu juddoo ba léegi fii au niveau de Rufisque ak embouteillage bii ñuy subir on n'a jamais eu un bon maire ba ñu fi juddoog léegi depuis des années soixante-dix ba léegi ñun gisuñu maire boo xam ne mun na taxaw waxal ñu tëngeej fii loo xam ne dinañu avancer mais ça nous fait mal une heure pour nga jógee soko biir Rufisque ñëw fii c'est une heure de temps. c'est une honte pour nous nañ ñu wax li fi nekk mënuñu am président mu ñëw fi ñu yaakaar ni mooy defar suñu dëkk mu tëj tëngéej def ko ñaari benn sortie benn rentrant muy HLM ak Colobane c'est une honte pour les Rufisquois on a du mal à savoir ce qui se passe réellement on est ras-le-bol il faut être sérieux il faut être sérieux nañu defar tëngéej lii li échangeur la waroon am juuti bi ça nous fait du mal ñu ne lii ab ab rond-point la mais ça c'est catastrophique ñun Tëngéej dafa mel ni ay Ghana fi nekk on a du mal à savoir ce qui se passe réellement on est ras-le-bol de sa il faut changer le pays et changer les Rufisquois pour que ñu am au moins loo xam ne ça nous avance ça nous fait du mal nous travaillons durement et nous mënuñu si sax génn ah lii lii li lii lii rafet na mais ku feebar da ngay dee fii koo fiy évacué fii bu jëyee amoon pay dee fu ñuy jaar fan ngay jaar pour nga jóge HLM ñëw en ville c'est une heure temps mooy ça c'est dur c'est une honte nañ ñu dimbali waay. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di di nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne nag vraiment ñun ay citoyen la dëkk Sénégal màggee Sénégal mais vraiment li am fii moom dañ ci war a wax quoi parce que man maa ngi nii dama doon liggéey démb ci tronçon bi ci de sene Sénélec pour yegg si fii rek def naa deux heures de temps xaw ma si yoon bi nii diggante bii rek quoi. franchement lii moom métti na trop trop trop trop trop kenn waxul nag dafa war a de xam na ne ni ngi liggéey ni ngi ci mais dafa waroon am beneen alternative boo xam ne nit yi wax dëgg yàlla dinañ si mun a gis seen bopp mais lii moom métti na trop trop trop man ci station bi fële laa ko gaare ndax am embouteillage bi pour mun a ñëw fii rek si si juuti caabi yaa ngi nii wax dëgg yàlla fee laa ko gaare metti na quoi xaw ma naka laa leen ko mën a expliquer mais war nañ si jóg quoi wax dëgg yàlla waxuma ne nag dañuy jóg xeex wala dañuy jóg yàq wala dañuy ci mais au moins ñu toog ñu réfléchir dimbali population bi quoi muy borom oto yeeg muy ñii di jaay ak muy ñii di dox yëpp fii moom vraiment kenn xamul lu ñuy dund temps yi wax dëgg yàlla jërëjëf ngeen baax. waaw xam nga lii moom vraiment dañ ci war a wax ak euh, les autorités parce que lii ñaaw na trop terre bii bu fekkente ni dañ koy defar nii ñu koy defaree nii nañu wutal oto yi fu ñu jaar ba pare. fii buñ fi sotti woon tuuti goudron sax mu baax ci hygiène doomu aadama yi mu baax ci cet gi mais lii dafa ñaaw diggante Kër masaar ak Tëng ak Tëngéej fii nga def ko presque quarante minutes loolu dafa ñaaw ci dëkk bu ñu naan bu ñuy wax naan émergence lii dafa ñaaw trop quoi man moom wax dëgg yàlla euh, immigré laa jaar naa Maroc jaar naa fu nekk mais mosum lii am Sénégal amul fenn nit ñi yaruwuñu oto yi circulation yi ni ñuy dawalee baaxul gouvernement bi liggéeyul. deful dara man nag Macky laa voté loon mais na ko leer ni sama carte moom dammate naa ko ah, vraiment métti na on la là dans les bouchons partout à chaque fois suñu ñëwee fii dañuy sonn di nga def une heure de temps deux heures maximum pour génn rek Tëngéej et que c' est très difficile pour la population euh, vraiment bëgg nañ ci ñu dimbali ñu jàppale ñu defar Tëngéej parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk merci beaucoup. construction terre bi ak déviation bi. waaw métti na moom lor nañu trop yàq yàq yàq na suñu liggéey moom métti na trop wax dëgg yàlla moom. instant da ngay jéeg da ngay fa yenn heure yi balaa ngaa fa parce que da ngay ay 23 heures ngay ngay wàcc mais trop quoi na loolu wax dëgg yàlla bu ñu am bu daal nu mu gën a liyee daal mu ah dina baax loolu quoi dégg